li dafa xewoon ci seeni jamono ñu koy jàngale mooy jëkkër ji moo amee sañ-sañu fase waaye nag mën naa féetale pase ma soxna sa mbaa keneen anamuk féetale ga ñett la mën naa doon tawkiil mën naa doon tamliik mën naa doon taxyiir tawkiil mooy délégué délégué nit ne ko délégué naa la nga fasel ma mbaa sax mu wax soxna sa ne ko pase man la ko yàlla jox waaye nag délégué naa la ci sa bopp nga jël pase dóor ko ci sa bopp tamliik nag ak moomale mooy mu ne soxnaam pase rey man jëkkër la ko yàlla moomale waaye nag fab naa ko moomale waat la ko taxyiir nag tànnloo mooy tànnloo naa la nga toog doon sama soxna ak nga tàggoog man mooy tànn sa bopp rek dem bu jëfandikoo baatu tawkiil moo xam soxna saa moo xam keneen la mu ne ko délégué naa la pase mi nga defal ma ko day jàpp ne moom nga ne ko woon doyloo naa la demal jënd li ma nangam ñooye moo bu la neexee balaa dem di ko jëndi nga ne ko bàyyi ko ba tey pase mi noonu la mel muy soxna muy soxnaa muy keneen bu ne ko délégué naa la pase moomu bu ko neexee mu ne ko bàyyi ko maa ko waxoon waxatuma ko ndax ak tawkiilu moom mooy rek wuutal la nga sañoon def nga wuutal keneen moom mu defal la ko kon nag bu la neexee ne ko maa la def la woon def luutuma la ba mu des nag bu dee ci wuutal ci pase gii moom soxnaam soo xam ne bañ ko koy may la ko waxoon ne ko du ma takk keneen gannaaw bu ma la takkee su ma takkee keneen rek dal naa lay wuutal ci sa pase bopp mooy bu ko xësee wax loolu nag nga xam ne kon jigéen ji am na ci àq du ko mën a nangooti ne ko maa la ko waxoon waxatuma la ko bu doon nag loo xam ne kooku amu ci genn àq moom bu ko waxee itam mën naa wëgatiku ne ko bàyyi naa ko génn naa ci bu xësee wax nag soxnaam ne ko parce que day maa ko moom waaye fabat naa ko moomale la ko baa mu ne ko dama lay tànnloo nga toog doon sama soxna ak nga tànn sa bopp dem yaari moom luñ xës wax du mën a wëlbatiku ne maa ko waxoon bàyyi naa ko faaw rek kañu moom loo pase mbaa kañu tànnloo mooy seet na muy def waaye moom lu xës wax muy góor gi moom mënu caa génn bu nee soxnaam moomale naa la pase mbaa tànnloo naa la mbaa mu ne ko sa fase bopp bàyyee naa la ko mel ni ko la ko délégué te fekk nag mu am ci àq mel ni la mu ko waxoon ci bañ koy may dañu koy daal di wax ne jigéen jooju kat doo mën a jotee teeg moom bañ xam ba xam lii fu mu mujj dañuy wax jigéen ji ne ko seetal ba xam nooy def bi mu la moomalee passé ndax da ngay dóor sa bopp passé am déet bi mu la tànnloo ndax da ngay tànn toog ak moom mbaa da ngay dem seetal daal nooy def li feeg muy seet diggante boobu nag duñ may jëkkëram mu jotee moom dara buñ ko nee waxal looy def nu ngi wut a wax dara àttekat bu mbàkk ko fa taxawal na wax ne kon li la sa jëkkër mayoon dindi naa ko ba mu set nga doonaat soxnaam rek mu sañ a jote yow mel ni mosulaa féetale dara ci passé soxna si jëkkëram féetale passé mbaa mu moomale ko ko mbaa mu tànnloo ko buñ ko laajee mu tontu tontu lu leer ni ki fase naa saa bopp ñett maa ngi dem wala buñ ko tànnloo mu ne tànn naa dem ak saa bopp bëggatuma ngay sama jëkkër loolu kon leer na bu ne itam da nga maa tànnloo ci ma dem mbaa ma toog waaye man daay toog dem mu fenn fii laay toog see yow ba tey loolu leer na moom daal li mu tontu te mu leer rek baax na donte sax daa jëf ñu xam waaye waxut ci làmmiñam mel ne gannaaw bu ko jëkkëram waxee moom lu demee nii daa walbatiku yombalal jëkkëram jooju mu joteeg moom te xam na lii lépp ni mu demee waaye teewul rek mu bàyyi jëkkër ji yombalal ko mu joteeg moom donte sax jotiwut ak moom waaye yombal na ko boppam rek day jàpp ne kon daa toog jëpputa fase boppam jëpputa dem bu fekkoon ne ba mu koy moomali passé mbaa ba mu koy tànnloo da koo sàkkal ab àpp ne ko li sa jant bi so mbaa li seen weer yi xaaj tudd daal jamono su jamono ji jeexee te soxna si waxul dara kon ñàkk na lañ ko mayoon bu ko àttekat bi yégee ba taxawal ko it lañ waxoon rek dañ ko wax ne ko tontul ba xam ci looy nekk ñu xam ko bu nangoo tontu baax na bu nanguur tontu àttekat bi ne liñ la mayoon dindi naa ko ba mu set soxnaam rek nga léegi bu tontoo tontu loo xam ne jamtalu na lee jamtalu na lee mel ne mu ne nangu naa mbaa nangu naa mbir mi mbaa nangu naa li nga ma moomale loolu day jamtalu nangu naa li nga wax ba tàggoo na ma ak yow day jamtalu ba tey dégg naa li nga wax waaye nanguwuma ko damay toog doon sa soxna mbaa dégg naa li nga wax waaye damay seet boo xam nu may def ndegam rek la mu tontu dafa jamtalu ne jamtalu ne daañu ko may mu firee ko maanaam mu leerale ko na mu ne moom la ko jàppee bi ci mujj nag mooy dégg naa li nga wax waaye daal seet boo xam nu may def dañu delluwaat rek ca àttekat bu mu ne ko seetal nooy def rek mu sotti leeralal bu baax looy def bu nangu wutal leeral rek mu ne ko lii la mayoon dindi naa ko ndax dañu bañ bàyyi ko jëkkëram ci bu mu sëy goo xam ne wóorut te it buy fàtte ne li fee muy wax lu leer rek dañuy aay jëkkëram mu joteeg moom dara ndax xamaguñu fu mbir mi féete mu ne nag jigéen jëmu wax ne ko tànnloo naa la nga toog doon sama soxna ak nga dem ak sa bopp bu ne man day jàpp naa saa bopp koo fase ñetti fase nga dem ma dem bu dee koo xam ne jot sa wéet ak moom ak may rek moo dox seen diggante kon mën na ko ne waaye wax itam jublu ma woon ñett benn rek laa jublu woon bu waxee rek lu ëpp benn fase mën naa weddante moom ne ko man nag benn rek laa jublu woon mbaa bu wax ñett mu ne ko man ñaar rek laa jublu woon kooku mu tànn loon nag bu fekkoon ne jotoon naa wéet ak moom moom lay tax ak tànnam baax mooy mu tudd ñetti fase ñooñu te bu xasee wax ñett itam moom jëkkër ji du mën a weddanteeg moom naa ko li yées ñett laa waxoon bu dee nag ka mu moomale passé al mu mal la ka moom mu wéet ak moom ak mu ñàkk wéet ak moom a ci yam bu waxee lépp rek benn passé man na ko ne man nag benn laa jublu woon waaye dañuy sart nag ba mu weddanteeg kenn ci ñoom ñaar di wax ne benn la jublu woon mu seet ne bu delloo ci xolam itam naka jekk moom benn rek boobu la jublu woon waaye bu may ñàkk rek tax mu ne benn laa yéene woon na fekk mu yéene woon benn mi wan na waa mat daan te it mu gaawe weddente googu maanaam fi soxna si waxe rek lu ëpp benn da wax fi saasa ne benn ma taxoon di wax te it bu dee koo xam ne wéet naa ak moom nga xam ne dana ko sañ a fay li day waat boole ci ne benn boobu mu wax moom laa yéene woon ndax dañuy bañ mu yéene woon ñett ba noppi bëgg ko fay li tax mu ne benn laa yéene woon kon fi saasa ndegam ku wéetaloon la mel ne kum sañ a fay li na waat ne benn boobu laa yéene woon bu dee nag koo xam ne jottoon a wéet ak moom nga xam ne sañu koo fay li takkaat rek moo mën a am kon dañuy bàyyi ba mu toll ci bëgg koo takkaat ñu ne ko nag la nga waxante boobee ne benn nga yéene woon da ngay waat nag fii mu nekk ne benn boobee moo nekkoon ci man moom laa yéene woon waaye ndegam jot a wéet ak moom moom sañu koo fay li man na ne man xaw ma dinaa ko takkaatam déet kon du jaar ñu di ko waatloo ci dogu ne ko faaw nga waat ne benn nga yéene woon bokk na ci sart yi ba muy wax ne benn passé taxoon ma di ko wax li ma koy wax na mu waxe woon bañ a doon ak baamoo ko baamuwaat mel ne amruha bi yadiha amruha bi yadiha amruha bi yadiha jigéen ji moo yore mbirum boppam moo yore mbirum boppam moo yore mbirum boppam di ko baamu noonu bu bëggee ne benn laaj jublu woon du ñu ko nangu lu may nag mu ne daa doon seetlu rek wax ji jenn jee dama ko doon dëgëral rek loolu nag seetlu nga jooju yéene moom moom rek moo ko mën a xam ñun mën nu koo xam waaye daal bu dogoo ci ne baamu gi ma baamu baat yooyu dëgëral rek laaj jublu jublu ma ci wàññi ak ñu bàyyi ko yàlla ne ko sañ ngaa weddanteeg moom jigéen ji ci boppam di ko jëkkër ji ne moomale naa la pase la neex yi dóor ko sa bopp bu ne tallaqtu nafsi tallaqtu nafsi tallaqtu nafsi su fekkee ne wéet amutoo seen diggante dañuy seet na mu waxee pase naa saa bopp noonee bu fekkee da ko soufflé wax ko bu susaloo benn yoon dañuy wàññi lim ba mu ko wax ñu jàpp pase ya mu toll noona li may nag mu ne moom itam damaa jublu woon a fedd li da jubluwuma ab lim su boobaa ñu fekk ko ci li mu ne daa jublu woon a fedd li bu fekkoon ne nag gannaaw bu jëkkër ji wéeteeg moom la ba noppi su xasee baamu baat ya mu soufflé ko wax ko mu tegaloo ak mu ñàkk koo soufflé ñooye moo dañu wàññi rek nam ko baamoo wàññi fasee mu toll noona li mu ne wala mu yastarit fil xaq di dañ ne boo waxoon wala mu yakun taalika fil xaq di rek mooy gën a matale ndax dañoo bëgg a wax ne bu fekkee dañ koy may soxna si la ko waxoon ne ko su ma akkee keneen ci sa kaw rek dal naa lay moomale pase mbaa dal naa lay tànnloo ñu ko waxewoon ci gannaaw bu waxee ab lim du mën a weddi moom góor gi naa ko man kat benn rek a taxoon may wax ndax jigéen ji da am àq moo tax moo xam dañ koo sartonte woon moo xam ci coobaram rek moom góor gi moo ko waxoon ne ko ku mu takk ci sa kaw rek dal naa lay may àqi tànn tàggoog man mbaa dal naa lay moomale passé bu ñu xësi am rek moom du sañ a weddenteeg moom ci la wax ci li muy passé su fekkoon ne jëkkër ji ba muy féetale soxna si lu aju ci mbirum passé dafa ràññeel ne ko benn kat laa jublu mbaa ñaar kon soxna su du mën a weesu benn boobee mbaa ñaar ñooñee su waxee lu ko ëpp itam jëkkër ji moom la waxoon naka jekk rek moo koy war du jar muy jekki di weddanteeg moom ndax bi yoon du ko tënkoon ne benn mbaa ñaar bu jëkkër ji waxoon soxna si ne ko tànnloo naa la nga tànn ñetti passé mbaa moomale naa la ñetti passé moom nag moom jigéen ji mu tànnal boppam benn rek mbaa ñaar kon bu dee ci tànn gi moom tànn ba yàqu na bu ko neexee tànnaat nag waaye ndegam wax nañ ko ñett mu tànn lu ko yéesu rek moom tànn ba baaxatut bu doon nag ci attam liik moomale ko passé moom lim bañ ko jox moom jigéen ji bu waxee bu ko yées itam du ko tee wér tànn ga bu nekko woon man lakk tukki falqa tey ni faqabat bi waaxidatin bu nekko woon moomale naa la ñaari passé mu ne jël naa benn dogal naa benn benn ba rek a wér tànn ga baax na te benn lay doon bu fekkee ne ba muy tànn la soxnaam ndax ba mu koy moomale passé jutu ko tudd benn lim ne ko tànnal loo cay fab te ne ko rek tànn ma mbaa nga tànn sa bopp mbaa mu ne ko moomale naa la pase wala moomale naa la sa mbirum bopp bi yoon moom ràññeelul benn lim dafa jekki-jekki jooyal ne ko rek bu dee tànn gi tànnal bu dee moomale gi moomale naa la pase daal di bàyyi mu nekkoon am na teqale ci kam ko wax doon ku mu tànnloo ak doon ku mu moomale pase bu dee ka mu tànnloo itam ñaar la fekk muy ku mu wéetal ak koo xam ne wéet ak moom ki njëkk a wax nag mooy bu dee ka mu tànnloo te wéet ak moom mu waxee ko ko nii mu daal di wax benn pase képp mbaa ñaar baña àgg ci ñett kooku jëmmi tànnloo ga lépp yàqu na ndax day mel ne jëkkër ji daa bëggoon mu dem wàcc ko moom nag mu taamu toog doon soxnaam kon bu dee ku wéetal moom wax ñett rek moo koy tax a baax waaye bu waxee lu yées ñett tànn ga yàqu na mu toog rek doon soxnaam dëgg-dëgg bu dee nag ku mu tànn loo koo xam ni jotutoo wéet ak moom mook muy almumal lakatu ku moom loo passé ñoo yemoo moom lañ wax te leeral ko mu yées ñett moo xam benn la moo xam ñaar la loola rek ay war jëkkër ja kon al mu xayratu dañu tànn loo bu dee koo xam ne wéetuñoo ak moom mook almumal lakatu moo xam ku ñu wéetal la moo xam ku ñu wéetalul la ñoo bokk àtte lu mel nii bu leeralee lim ba tam yées ñett it la mu wax rek loolu la ñuy jàpp loolaay war jëkkër ja lee nga weesu woon kañu tànnloo mbaa kañu moomale passé te jëf ca joyal maanaam ñàkk ko wax benn lim ne ko tànn ca jotoon naa leeral ab lim moo xam benn moo xam ñaar moo xam ñett bu ñu wax la àtte ba bu wax nag bu tontu woon tontu loo xam ne waxut benn lim bu leer di ci mu tontu ne talaqtu nafsi kon day fase naa saa bopp wala ixtartu talaaxa kon day tànn naa passé loolu xam nga leeralul benn lim ci benn pase mbaa ñaar mbaa ñett kon dañ koy laaj ba xam mu tontu ci tudd ab lim su ne ñett laa jubli ci fase naa saa bopp mbaa tànn naa pase ma bu dee ku jëkkër ji doon tànn loo te fekk mu wéet ak moom kon tànn nga baax na te ñett yooyu mu wax mooy war jëkkër ja du mën a jekki di weddenteeg moom bu dee nag ku mu tànn loo woon koo xam ne moom jotute wéet ak moom mook bu doon ku mu moomale pase ñooye moo ku ci nekk bu waxee ñett mën naa weddenteeg moom ne ko man kat benn rek laa waxoon wala ñaar danga ne woon léegi buñ ko laajee lim boo jublu mu ne ñett wax nga àtte ba buñ ko laajoon nag mu ne benn rek mu ne kon ba tey nga teqale mu doon al mu xayaratu ku ñu tànnloo te wéet ak moom mbaa ñàkk wéet ak moom ñaar lay doon ak mu doon al mu màllakat ku ñu moomale pase moo xam wéet nañu moom moo xam wéetuñu moom lay àtte ba mooy bu dee al mu xayara ku ñu tànnloo te fekk ñu wéet ak moom buñ ko laajee lim ba mu ne benn kon tànnloo ga yàqu na daal nay toog rek doon jabari jëkkëram jooju tànnloo ndax ni nga ko waxe woon ku ñu tànnloo moom te jote wéet ak moom lay tax ak tànnam baax mooy rek mu tudd ñett te bu ko see tudd ñett jëkkëram du mën a weddanteeg moom bu doon nag koo xam ne ku mu tànn loola waaye jote wéet ak moom mook almumalkat ku ñu moomale passé ñooye moo moo xam ku ñu wéetal la moo xam du ku ñu wéetal bu ñu tuddee benn itam benn ba rek kay war jëkkër ja bañu koo laajee nag ne ko waaw lim boo jublu ci li nga waxe woon ci dëgg-dëgg daal jàpp ma woon benn lim damaa damaa jekki-jekki rek ne talaqtu nafsi mbaa ixtartu talaaxa fase naa saa bopp mbaa tànn naa pase waaye nag jàpp ma teewlu benn lim bu may jublu dëgg-dëgg mu ne kon wax ji gën a wóor mooy dañ koy jàpp ñett dañ ko jàppee ñett te fekk kooko doon mu mal laka ku ñu moomal pase kon daañu mën a weddenteeg moom maanaam wax lu yées lim bi ñu wax moo xam ku ñu wéetal la moo xam du ku ñu wéetal mooy nag bu ñu bëggee féetalee pase koo xam ne du soxna sa ci boppam keneen lay doon kon ku mu doon rek na fa nekk mbaa bu demee itam dem ba bañ a sori ne bu dee ci yooyu jamono lu mu sori sori bu mu weesu doxub ñaari fan bu fa kooku nekkul nag waaye sori ba weesu wut du tolloog doxub ñaari fan mbaa lu ko yées dañ koy yoble wax ko ne ko diw kat da laa féetale pase ak soxnaam ñëwal nag mbaa nga taxawal ay seere yoo xam ne ñoo lay taxawal wax li nga bëgg sori waaye doxub ñaari fan ca yooyu jamono bu nu taalifee moo tax muy wax bu doon léegi si nga xam ne adduna sépp daa xaw a mel ne benn barab jokkoo bi yomb lool lool moom mel ne na kon daañu seetaat atte boobu te mu féetale passé ma ndekam du soxna sa te it nekk fa te sori boole ci dañuy far jël féetale ga delloo ko soxna sa ci boppam mu daal di def na nga waxoon ci gannaaw atte ba daal jël siwaat lépp loo waxoon ci féetale sa soxna wàllu passé rek atte boobu mooy ñëwaat te jëkkër ji wax ne ko sama fase ak soxna dama la ko féetale na seet nag lay maslaa mooy na seet la baax rek mu doxal ko gum ca sàggan ci def loo xam ne gënut moom miy féetale pase te du soxna sa day amee ak teb soxna sa li ñu waxoon ne soxna si buñ ko wakkiilee pase mbaa buñ ko tànnloo mbaa buñ ko moomalee pase mooy atte ba ba tey moom mi nga xam ne moom lañ ko féetale atte boobu lay amee ci wàll yëpp yëpp yëpp amul genn teqale mu ne bu jëkkër ji waxee ñaar mbaa ñett mbaa lu ko ëpp ne leen dama leen a féetale sama mbirum soxna si ngeen seetal ma ba bokk xalaat ci daa koy fase am nangam ak nangam yéen daal dooloon naa leen seetal leen ma mu ne kon faw ñu xalaat ba amul déggoo ci lenn ñu door a yee loola bu ñëpp ne woon dañuy fase soxna si ba mu des kenn kenn ka ne des ko fase ko it du fase moom ma ne du fase moom la ñuy topp balaa fase mën a am rek ñoom ñëpp ci marché ci daje ca lu may nag néew leen daa leen a féetale ngeen xalaat ci li ngeen cay def daa wax kenn ku ne ne ko féetale naa la mbirum sama soxna si yow ci sa bopp nag nga seet ba xam yow nga cay sa xalaat xam ne kon néew leen ngeen bokk diisoo mel na jënn jëmm jàppandoo mbaa bàyyeendoo kenn ku ne dalaa jox ne la mën ngaa yëg sa xalaatu bopp kon kenn ku ne daanay am sañ-sañu def xalaati boppam daa mel ne kon nag bu ci kenn waxee ak passé rek passé googee dana dal bu leen jëkkër ji waxoon ne leen nag waxa leen ma saa soxna si ne ko passé naa ko loolu moom kon yónnee passé la yónnee passé nag moom moom mi yónnee bu kàddoom di daanu rek passé ma dal nay am doom ci sax demuñu yëgal soxna sa li mu leen yónni itam moo ci bopp nag wóor ne bi mu tuddee passé mi rek passé mi dal nay am